الحمد لله الذي قال في محكم تنزيله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخائن إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو الله له wa ala alihi wa sahbihi wa sallama mbokk yi xam naa la waaja waxoon bi mu jaaxle d'abord maa ngi wax sama gi ñi nekk sunu daje ba lay dañu wax ba pare président Macky Sall nee na Habib Sakho ñaan ma ne ko man nag ab buñ ko nee ñaanal mooy bul wax te dafa am lu ma bëgg wax man na keneen ñaan ma wax loolu mu ne kon ñaanal te wax loola li ma bëgg tàmbali wax mooy waaja ba mu jaaxle def na yàlla ni may def ba yaakaar la jaaxal moom ndax li nga tere yëpp maa ci waaye ni may def ba duma la yaakaar it jaaxal na ma ndax keneen amu fi kun yow ñu toll monsieur le préfet maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu ñi nga àndal sax dama daan wax ne ñoo gën meer ci Sénégal moom laa daan wax naka njëkk wax ji nag bés bu nekk rek mu gën a dëgg ci taxawaayam yal na yàlla fay tey ñu ngi nekk ñëpp maa ngi nuyu ñëpp nuyu métti di nuyu waa gépp xam naa sama wax li ma ciy njëkk dina ci bokk ñaari yëf dama demoon maa bu fan yële passé ñu wax li nga wax ci télé bi yàlla bu bëggalee sax ab sëriñ daf koy ñaan loolu mu dogal ba pare bu may wax waxu taliba xaw ma sax ndax kàddu yooyu président jot na ci am jotu ci waaye taliba mu ngay pare moom mu nga ñëw ko xaw ma ma ci ci bërxal wax boobu maa ngi ñaan ci barkeb saa bi tudd wal fajri yal na yàlla xiir président mu mu ñaan ñu ubbi wal fajri naf andi beneen bi ci topp mooy ñaari yëf ba ci ñett mooy xale la plupart pour nga pour nga not ko danga koy nax mag danga koy neexal président nu ut ay xale yu yaru ci diine ñu naxante xale yi mag yi nañu ut mag yu yiw ñu am xarit am wëllëre am njariñ ci nit ñi ñu naxante mag ñi situation bi am ci réew mi ku ko wax ak ku ko waxul mooy génn gune wegatul benn mag benn mag yërmatul benn gune bi njëkk booy dugg ci kaar yi agsi booy teg sa tànk rek benn xale la naan papa ji toog fii keneen ne papa ji kër fayal léegi boo yéexee ni dëgg sa tànk ba ne papa mu ne ah, mu ne papa jéggalu jéggalu situation yooyu moom lañuy dund te xamuñu lu mu ko teg mérité wuñu ko Sénégal mérité yooyu ba tax na loolu nañ ci ñaan sama borom moom dimbale nu ci beneen bi ci des xam naa ne mooy wax dëgg yàlla tabaarakallah sama xale xel réew mi ñu ngi séentu ay koom-koom yoo xam ne bari na fuñ koy séentoo bu fa amee ñu yàkkamti sant Cissé dañuy mujj song ci la di te fekk du ñor këppaale ci la këpp dund ba këpp la ci nekk li monsieur le porte wax léegi dëgg la maa ngi jóge Séoul ca ca ca Corée bokkoon naa ci commission mondiale bi nga xam ne li taxoon na dem mooy wax waxi jàmm waxi jàmm nag boo koy wax te foog loo cible ba muy alxuraan oustaz Baye da ngay sonn sëñ Tuubaa biñ koy laaj biir yonent yàlla Muhammad ne maqaamaatu xayru xalqi nga bëgg xam mu ne mu gaybatu mu ne mu ne fax taxada fal fal taxal ana suurata najmi maqaamaatu xayru xalqi an xayri rabbihi mu gaybatun fal taxal ana suurata najmi dafa ba mu gaa yi ñu jox leen référence alquran suuratu najmi mu ne wa najmi idaa hawaa maa dalla saaxibukum wa maa hawaa wa maa yantiqu ani l-hawaa mu ne in huwa illaa wahyun yuuhaa alamoo sa di lu ba zungi ratin fasta yow bu fekk laa ne mu ne suma danaa fa te dalee fa xaw see ne xam nga mu doon wax fa aw xee ilaa ab di maa waxee loolu joxe référence foofu ak koom-koom bi ñu am ak mag ñu baax ñu ne ci kanam ak gouvernement bu bi ñu am ñu foog ko def ko muy suuf tawasul ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla la suñuy mbir ci moom mu dimbali leen maa ngi dégg benn kilifa di wax naan ñu wax taalibe yi naan dañuy ut état taalibe lu muy doyee état waxatuma laa ñuy jëlaale kuy jaay ganaan wax dafa am waxin dafa am léeg-léeg nga dégg ku wax wax bu rëy ñu tëj ko ci kaso nga gis ku wax wax bu woyof ñu décoré waxin wa lay doon ak déggin wa benn mbuur mas naa gént yeewu ay bëñam yëpp daanu mu nekk liggéey ku mën a firi gént kooka ne ko loolu de mooy firnde yaay njëkk dee ci seen njaboot mu faf ko rey moom ñu toog ay weer mu géntaat la même chose wax ko nit nit ke ne yaay gën a gudd fan ci saw askan mu yóbbu ko màkk décoré te benn wax benn lañ wax kon waxin mooy am solo ak déggin wa léeg-léeg jàmm nga transformé ko ko neneen dafay bare boo demee ci ci prison yi ñi ëpp ci fam ña te ay xale am na ñoo xam ne jàngale alxuraan la seen métier waaye bañ leen sante firi alxuraan dañuy dañuy firee ci seen façon dugg naa université barki dama ñëwee conférence ba surtout Yuusufa ma ne musiba am na de bari na ñoo xam ne ñu génn fii dem kaso parce que mooy actualité Yuusufa dañ ko tuumaal dañ ko lii dañ ko boo ko firee exactement nag ni ko dégg ku ko dégg te ñaaw njort mën na ko transformé neneen ñu jël la ngay pare ci bi rek tëj di sangu ñeen la kaay wu police donc taalibe yi nañu seet ni ñuy firee alxuraan benn bi ci des mag ñi nga xam ne ñoo toog seeni kër di ay mag seeni dooma ñoo naan ko papa buy wax ci événement bi de te fekk boo ci waxul musiba papa boo ci waxee ñu def la ci téléphone yi papa ñu ngi lay xas ci biir téléphone yi papa nangam ba nga ragal la waxati ci mbir mi ñëpp noppi nag musiba am il faut que mag ñi am courage di wax waxoolu li naa si xusnan seen mbay moom la wax waxtaan ak nit ñi seen kemtalaayu dégg dégg delloo si ci réew mi réew mi ñun ñëpp ko bokk bu fekkee ne ñetti fukki nit a décidé parce que tey jii ne nañ taal benn kaar léegi kaar yi jeex te xale yi seen xel dara new ci dul yàq donc kon nañu ñaan réew mi yëpp ñu loo kenn ku ci ne boo wéete teg sa doom nga wax ko yàq li muy def jariñ boo demee ba ñaan des si nga ñaan dina ñaanul sa njaboot njabootu kër ak njabootu àll amul kenn kuy xëy génn dajeeg nit ku góor donte sa doomu nijaay la joo yar ci kër gi dangay ngay defante agresseur la xaw foo raja ragal ngay xëy moom ngay gont yàlla nu yàlla doolu sutura kër yi ñu gën a yaakaar ci diine boo fa demee boo waxtaanee waa kër gi da ngay gis koo xam ne naan kii dafa nekk ci àll day am àll fekk dafa dof ba ngay toog rek ñaari fan gis naa fi barki dama koo xam ne kii Seydi ma Malick ngay maamam teeleen doomam bul tux cigarette bul nangam xale bi jéppi na bàyyi bi ci wax ba def ko gannaaw jam ko paak mu de barki dama njaay donc yow sax da ngay ragal yedd sa doom à la kay ragal yow donc solution amu fii lu dul ñaan ñaan ak ñaanlu mag ñi leen war def nañu ko jigéen ñi leen war ci seen doom def nañu ko góor yi yàlla def ñu toll ci takk sox takk soxna nañ jàpp ne ñiy agressé la ci mbedd mi bàyyi mu sax naan maa ngi ñaan yàlla jéeg di gudd fan ñu ne lu tax mu ne kenn ku ci ne li nga liggéey nga teg ci bët juróom lu fi agresseur mu ngi jàng yow nga dem laaxira mun toogal fii gis li xew ba pare yàlla yàlla teg loxoom ci njaboot Sénégal yëpp sama gaal ngi dëkk man avenir boo xam ne màkk sax amu fa ay seytaane di taxaw temm nag pour du àgg foofu boo laajee ana ustaas diw ñu ne ñu ko démb la génnoon rek nangam na arrêté nañ fekk alxuraan bi doon jàng mais njàngin woon day gaaruwaale bàyyi bu sax ndax naan bu leen suli waxu ku dee di ko xeexe kuy dund waaw ku dee woon daawati jéeg nga ne masoon na wax ne nangam moom du ñëwaat pour weddi ko te wax ja ki nga koy xeexe moom ki ngay waxal la affaire bi du noonu yan yàlla boole jàppale monsieur le maa ngi leen di gërëm bu baax a baax gis naa sa taxawaay surtout ci salaatu tasbih madinatul munawwara ñu ngi la ci gërëm guddi ak bëccëg bi nga laata ñëw fii Ousseynou Sakho ak gaa yi la jóge yëpp wax nañu sa taxawaay ba ñu am yaakaar ci yow léeg-léeg nga jégal kilifa nag dëkk koo indil ngaa ñëw mu yëgul loolu président bari na ko lool léeg nga sore kilifa di ko indil ndam mu liggéeyoo am na yoo xam ne dañu bëgg président Macky façon koo xam ne kii am naa ci koo xam ne kii boo nee Macky bala ngaa àggale mu door ba di ndax bëgg Macky moo tax nangu la seetaan télévision yi pour xam sax ñi xew te fekk yëf yi boo ko boo ko diglu doo ko mën a àtte ñu ko jege ñoo xam ne nii li ma ko mujjee wax ci jàkk laa ko fekk ne man dama la bëggal dama la bëggal ndam loo liggéeyul kon maa ngi lay yalwaan sax boo boo liggéeyul lu mel ni tali yi nangam nangam waaye boo defaree ba pare bañ na ëllëg la rek benn waa fi jaar boo xam ne bi yaa ko fi nga woon démb kat xamul dara ci mooy wax lu tax président ko def ñu koy ñaanal di ñaanal Omar Youm surtout nag mooy suñu mbokk moom feeti fii xew-xew bi bi ma koy wax bërki dem daf ne yëgu ko woon loolu la wax yëgu yëguma ko woon dinañ koy layee ñoom waaye laa ku ne xaale mbir la moo xam ne mii ku am chance koy yëg ku am yitte koy yëg ndax maam yi man sax mu tëdd fii bala ñu koy xam ñu dem ci yàlla mu soog mu wax ne kan moo doon maam yi man allahumma salli ala sayyidina Muhammad ñu ñaan monsieur le maire This is the question. Wow, wow, wow. bàyyi te ko daan def di ñaanal sama mbokk yi nekk ci tefes gi pour yàlla jox leen ay jël man xam naa su ma ñaanee dinaa ci bokkaale parce que am naa am yàlla boole xew yi jóge ci kaw geeg yi jóge ci suuf yeeg yi ñuy béyee ñi raadoog ñi am ñi am ay gaalak ñi mariyeeg ñëpp yal yàlla bett leen xewal yu mag a mag lu jiitu loolu yàlla sama borom tuuf jàmm ci réew mi ni ñun ñëpp nag suñu doxin nañ doon ñaaw njot ak di ñaan ak di ñaan la waaye bu saxaal nañ gàllaaju mbaa ñuy gànnaayu jamono boobu la ñu toll gàllaaju yu ak gànnaayu yal ko yàlla boole defal ci barke yonente barke xaaji Ibrahima Sakho bi nga xam ne machine la woon rek bu daan pikiir bu la ne cuut rek nga bëgg yonente bi barke moom dara ñaam yal na yàlla boole yëpp seen xol di benn defal xale yi ci biir ubbi xelu ak étudiants yi yàlla delloo si seen xel jàppale leen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 allahumma rabbana anzil alayna maidatan min as-samai takunu lana iidan li awwalina wa axirina wa ayatan minka warzuqna wa anta xayru raziqin rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi l-axirati xasanatan wa qina adaabu naar yàlla koy fekkee at yu bare bare bare bare ñi ne ci laal yi feebar yàlla yàlla saafara ñi nekk ci jafe-jafe xat-xat te nekk ci loxoy buur yàlla na yàlla yokk ci ñoom yërmande te itam yàlla defal leen sutura ñu génn ci jàmm fekk seen i njaboot ci jàmm moom seen yàlla seen Muhammad wala sallam na fi yàlla def mu ngi wax naa yàlla doon at mi mu doon xaar ginnaaw bi papa ñaanee bàyyi bu saaxo ñaan ñëpp ñaan yàlla nañu toll ni ci jamonoy amin ci barke yonent bi sallallahu alayhi te mu ñëw te jig te itam xale yi daan dem ci géej gi dafa yàlla xiir leen ba ñu jàpp ci leneen lu tax dootuñu dem ci biir géej gi pour di fa dem di uti leneen feneen yaa xaayisal bari lay say daaj Maalik waxoon sëñ Tuubaa ne yaa ahla bari kenn ku ci ne wax na ci ñuy dem ci géej gi nen toog leen fii li ngeen di wutee ngi fii yal nañu yàlla déggal woote yooyu nga xam ne moom la mag yooyu defoon te ñu tombee wërsëg yooyu allahumma salli ala sayyidina Muhammad